wa yuhibbu tawaabiina wa yuhibbu almutatahiriin walaqibatu lilmuttaqiin wala udwaana illa ala alzaalimiin wa waylun lilmusalliin alladina hum an salaatihim saahuun alladina hum yuraa'uuna wa yamna'uuna almaa'uun وصلى الله ورحم وبارك على محمد الأمين المنزل عليه الكتاب المبين والمبعوث رسولا في الأميين وهو أشرف المرسلين وما أرسل إلا رحمة للعالمين وقد ختم النبيين وساد الأولين كالآخرين وآله الأتقين الأكرمين والمذهب عنهم الرجس المطهرين كما صلى ورحم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أبي الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن أصحابه المجاهدين المهديين الهادين والغلاظ الأشداء على الكفار والمنافقين السابقين الأولين من المهاجرين المكيين والأنصار المؤوين المدنيين والذين اتبعوهم بإحسان من الرضوانيين من بايعوا تحت الشجرة ومن غيرهم من الذين جاءوا من بعدهم واقتفوا أثرهم محبين في الله لهم مستغفرين لأنفسهم ولهم إلى يومنا هذا وإلى يوم جمع الأمم mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki réew mi maa ngi leen di nuyu ci turu Sëriñ Muntaxa الخليفة العام للمريدية أيده الله ونصر وحفظه وستر ورحم سلفه وغفر لهم ولكل من آمن ولم يستكبر di leen jottali ci ndigalam kàddu yi te li ci jiitu mooy sant leen yéen mbokki taalibe yi ci seen pasteef ak seen taxawaay ci liggéeyub sëriñ bi ci mboolem li jiitu te leen di ngeen gën a feddali laxasaay yi te xam ne yàllaa nga gis lépp ni mu ko waxee ci alxuraan rekk wa qul yaamalu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wa sa turadduuna ila aalimi alxaybi walchahaadati fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaluun nee na it ci laaye bi yonente bi it dana ko gis ëllëg ñu nekk ay jullit dëgg it danañ ko gis ëllëg yàlla nañu ci yàlla boole nee ci it dees nañu delloo ca moom mi boole xam lu teewul ak li teew mu xibaar nu xamal nu lépp lu nekkoon daa ko def fii ci àddina loolu mat naa gëm te bàyyi ko xel ndax waxi yàlla la inna allaha laa yuxlifu almiaad gannaaw rabbana innaka jaamiu nnaasi li yawmin laa rayba fiih waada allahi laa yuxlifu allahu almiaad gannaaw lakin alladina ttaqaw rabbahum lahum xurafum min fawqiha xurafum mabniya xurafum mabniyatun tajri min taxtiha al anhaar gannaaw loolu bis bi nuy daje at mu jot ngir fàttaliku ko xew bi ci amoon te booba ak léegi jege téeméeri at ak fanweer 130 years di xew-xew boo xam ne jar na fàttaliku lool ndax lim wundu muy gëm yàlla ak wóolu ko ak doyloo ko ak wakkilu ci moom te nag wa man yatawakkal ala fa huwa hasbuh wakkilu ci moom ak ragal ko ak bàyyi xel ci ndigalam ci lépp ak ci fépp ak ci wéetaay ak ci teewaayu ñépp waaye muy dëggalit li yàlla waxoon ne wa anjayna alladina aamanu wa kaanu yattaquun bi sëñ Tuubaa min alladina aamanu wa kaana yattaqi yàlla daan koy musal ak li mu waxoon ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja waaye muy xew-xew boo xam ne day firndee li sëñ Tuuba doon te dundoon ko di abdullahi wa xadimu rasulih sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba tax yàlla rekkee boroomam gëm ak ragal ak topp yàlla rek la ko defee xam ne ad-durru wan nafu min ar-rahmani lay laysa min albiidaani wassuudaani yërmande yàlla daal koy sowee loolu nag di bind bu am solo bu nu sëriñ bu mag bi jàngal ci julli gi mu julli ci géej gi nu war cee xam ne ndéglul yàlla moom jëf rekk a ca war te jëfe ko it lor du ca juddoo mukk di safaanob bañ a jëfe ndigalam ci loolu sëriñ baa ngi nuy soññ nu gën a farlu ci tënku ci ndigal yi rawatina ndigal li jiitu ci ndigal yi nga xam ne la leen ndigal lum dajeel lu ne dana war a bàyyi ndigal loola ba noppi ci moom def ko jaraloon sëñ Tuuba lu ne ba yàlla defal ko ci karaame gii nuy fàttaliku fii te mooy julli ak moytu tere yi tere yi yépp rawati nag luy niru bokkaale ndax ni julli jiitoo ci ndigal yi ni la bokkaale jiitoo ci tere yi ñaar yii di tënku ci ndigal yi ak moytu tere yi ñooy firndeel tey dëggal sunu aju ci sëriñ bi te aju ci moom day yiwu àddina ak àllaaxira ndax moo ne li kulli man bi yataallaqa bi najaax min kadari dunya fii yow yawmin najaax waaye juddoo ci yoon wi kese wala jébulu kese bokk ci tekkiwul aju ci sëñ bi ki ci juddoo walla mu jébulu te soxla ci li sëñ bi digle te fas yéen wut a bàyyi li muy tere kooka bu ne ci la aju tegam li muy wax mi ngi nax boppam nax yu tondu te yëgu ko bu ko yëgee nag moo xam intérêt ba mu ca gis ba tax mu koy wax te gëmu ko ki mel noonu yàlla nanu yàlla dimbale te dimbale ko mu jóge ci loolu def nu ñun ñëpp nu aju ci moom dëgg-dëggi aju te koy aju ku ne it seet bu baax lamuy muy aju xam fam jëm ndax loo aju lu ne kat fam jëm képp la mën a jëmee ak fu mën a jëm ci àddina fu mën a jëm ci àllaaxira ku ci nun nag bu seetee nan la def ak ndigal yi ak nan la def ak tere yi xam ak ajoom nan la demee yàlla na nu yàlla def ñun ñépp ñu aji sëñ Tuba gën ja rafet ak nit ñu baax ñépp maa ngi jéglu ñépp di siyaare ñépp di njoppeel nekk ndokkeel ñëpp maa ngi nuyu kilifa gi ma deen daal di sëñ Ibrahima Laay te di ko di ko jot jottali loo nuyoo ci mbokki laay ni yëpp ak yeneen mbokki jullit yëpp nag ndax moom teewal na fi yeneen mbokki jullit yëpp di maa ngi nuyu ah, sëñ Bakki yu ak soxna Sooda jaarale ko ci nuyu nuyu taalibe yu góor yi ak taalibe jigéen yi yàgg nañ fi yàlla daje te li ñuy séentu ci ngërëmu sëñ bi yàlla defal ñu ko fajal ñu suñu aada yëpp saafaral ñu suñu jàngoro ci barkeb ki tax ñuy teew fii di ko fàttali ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi leen sëriñ su loxoy sëriñ bi ñaan leen